salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéenay safoo leexu suñu TV man li nuy bu baax kenn ku nekk turam ak santam euh, di leen euh, jox kenn ku nekk wàccaam comme ni leen ko diggoon rek saa yu nekk rek suñu TV lépp loo xamante ni jafe askan bi la ak lépp loo xamante ni tamit rek dañ ko yittoo pour ñu wan leen ko dañ dem ba fu mëntu nekk Sénégal tey nag suñu TV mu ngi fii diwaanu Mbirkilaan Mbirkilaan nag suñ ko waxee commune la nekk fu nga xamante ni si région de Kaffrine euh, ñu leen di nuyu bu baax tey nag li ñu andi Kaffrine mooy dañ gis ne tey baykat dañoo am ay jafe jafe yoo xamante ni muy wàllum gerte gi gerte gi suñ ko waxee mooy da ngay bay ba neet bu wàcc neet bu si wàccee nag euh, lan mooy yoon coopérative yi ñu ubbi ko am ñoo xamante ni ñooy jaay si géej gi si gerte gi di jënd ñu gis nag état bi dañu waxoon dafay jaay prix bu deux cent dix francs te ñu gis ne nag si diwaanu Mbirkilaan loolu moo nekk seen jafe-jafe bu bu rëy a rëy fii si diwaanum Birkelane dañ gis ne ñi nga xamante ni ñoo nekk commerçant yu ndaw yi ak yu mag ñoo xamante ñoo fi nekk état bi su leen joxee xaalis 210 pour ñu jëndee ko di ko jëndee dañ koy dem si luuma yi di ko benn benn di koy benn jaar ba ñu gis ne tey si diwaanum Birkelane dañuy jënd li nga xamante ni moo nekk gerte gi si à prix de 190 wala 150 ba 175 loolu nag suñu TV tey moom la ñëw fii diwaanum Birkelane fas yéene wan ay reportage yoo xamante ni euh, seen jafe-jafe yi ñu ñaxtu ko wax ko fii ñu dégg ko kon nag mbokk yi bu kenn zappe bu kenn euh, taay da ngeen ma may tuuti rek ma ànd ak yéen ak suñu cameraman suñu technicien suñu réalisateur ñu wane li nga xamante ni mooy xas diwaanu Birkelane ak jafe-jafe nga xamante ni ñu ko am si diwaanu gerte gi kon mbokk yi bàyyi ma dugg xool li nga xamante ni moo fi xaw ma jox leen ko léegi en direct sur la télévision suñu TV jërë ngeen jëf ñu dem léegi di ñëwaat Bachirou Ba ñu gën ma xam ci Tukulóoru Baay nekk président aar sunu moomeel. waaw li ko waral mooy dañ gis ne àll bi euh, gerte yi jarul fu ñu toll waa dëkk yi yëpp di ñëwoo baykat yi di ñëwoo que ni gerte yi jarul ñu def remarque ne at bu jot noonu lay demee ñu jaaxle lool ci ñàkk jar bi ci loolu nag ñu dégg tout le temps. fu ñu toll rek ñu ngi dégg ñi naan état bi la ñi naan waa Sonacos la ñi naan opérateur économique la ak bu mën a xew ci ñoom ñett ñooñu le béykat bi gisu ci boppam coono boobu nag moo tax ñoom ñu woolu ñu ñëwoon tey pour wàcc fii wan nag suñuy autorité na ñun baykat yi vraiment bay gerte la ñu am pour bay dundee moom la ñu am te franchement gerte yi buñ jaayee ba pare buñ ko indee ci kër yi ba pare teg ko duñ gis ko ko jënd wala ñëw gis ay bon MP gis ngeen sànq ay kilifa yoo xam ne ñu wane seen gerte yi jarul soit dañ ko fay teg ba mu yàqu wala mu saxee wa illaa ñu nekk di ko mbapat benn par benn di ko yóbbu ci marché yi di ko jaayee ay 175 jàpp 180 loolu moo fi am voilà loolu mooy suñu naqar parce que dañ jàpp ne nag ku nekk ci ñoom tey bu sa boo liggéeyoon ba weer dee da ngay xaar pour fayee ko sa salaire foog toogee lu yàgg di bay yaakaaru lu dul gerteem kenn jënd ko te mu bokk ci réew mi war a dundee loolu le day am naqar nag loolu day jot pour mu génn laaj nag ndax moom dafa bokk ci réew mi wala te ci biir loolu dañuy dégg Sonacos wax na fi ne moom génne na xaalis yoralul benn opérateur économique opérateur économique yi nee nañu carrément ñoom yoraluñ kenn maanaam ñoom opérateur économique yi nee nañu carrément Sonacos yoral na leen xaalis joxuñu leen ci diggante loolu diggante opérateur économique ak waa Sonacos xamuñu kan moo ci problème bi mais lu mën a xew mooy baykat bi amul benn yoon boo xam ne ni moom muy gis boppam dund gerte bi te loolu boo gisee mooy c'est parce que li fi xewoon depuis Senghor colonial ba léegi même système moo fi am dafa jot nag ñu changé loolu rek ñun li ñu jàpp en tant que nit boo xam ne acteur nga de développement yoru mouvement bi nga xam ne mooy aar am part de responsabilité bu mag peut-être comme ni ko ci gouvernement bi amee parce que moo waroon coacher xool moo jaadu ak lan moo jaaduwul mais opérateur économique yi ñoom ñooy dem euh, Sonacos am seen quota par exemple ñoom ñoo dem Sonacos am seen ñu subventionné leen agrément ñu leen léegi su ñu leen agréé ba pare ñu ñëw ñu war leen jënde 210 francs c'est vrai que ndaw na ci gerte mais 210 lañ leen di jox ñoom ñooy jël nag seen nit jox leen ñuy jëndee di mbappat ci àll bi ñuy dajale dem yóbbu jiwaat jaayee Sonacos euh, jaayee Sonacos 210 yi soora am seen euh, mooy 10 francs yi ñu ciy am seen pourcentage bi ñu ciy am ak seen transport bi donc bu loolu boo ko xoolee moo tax amul benn opérateur boo xam ne ni tey dina dawal ñaari at ñaari saison lay dawal jëndal boppam camion wam parce que ñoom li ñuy am baykat bi sax amu ko léegi nag ñu ne état bi na xoolaat moom ñu def benn atelier ñu waxtaan entre Sonacos ak baykat bi ak état ñu xool génnee carrément ñoom ñi nga xam ne ñooy opérateur économique parce que ñoom ñooy parce que suñu mbokk lañ ci ñun lañ nekk mais ñoo ñuy rey parce que ñoom ñoo ñuy exploité ñoom ñooy jël ko bokkul ndey ak jox ko xaalis mu ñëw ci yow di la mbappat di def moins cher te ñoom bu ñu paree dem jaay ji deux cent dix plus seen pourcentage xam nga loolu jaarul ñu nag comme am na lu fi xewoon bu njëkk mooy euh, état dafa tegoon bu njëkk Sonacos def ay seko ay seko daf fi amoon seko yooyu laa bëgg Sonacos ci boppam jëlaat ko jël ay nit yi boppam joxe leen parce que bu leen joxe danañ xam ne Sonacos lañ amal affaire bu lebee dañ xam ne Sonacos lañ lebal bu bu fayee dañ xam ne Sonacos moo fay mais ñii fi am nii opérateurs yi dañuy ñëw comme sa mbokk la yebal kenn mu ñëw jënd. wala mu leb yóbbu xaalis bi yóbbu gerte bi nga toog ba fi ma yoo am ñoo xam ne daaw te bu ñu ma woowee ma indi leen ko daaw ñoo xam ne ba léegi nii seen bon ñi ngi ko yore ñu ngi nekk ci commune lañ nekk ba léegi nii mënuñ jot seen xaalis c'est parce que affaire de mbokk bi tax doo mën loolu day métti ci baykat wala nga tiim ay tonne mu wóor na tii boo ko jaayee dem mun nga ci am kër mën nga ci am oto mën nga am leneen mais da ngay obligé de ko mbapat parce que nag mënoo toog sa jabar feebar wala nga war a ngénte wala nga am xew wala nga am leneen ba pare gis alal alal gàcce lay faj mënoo koo téye te doo ko faj donc bu fekkee loolu am na ñoom ñooy profité di mbappat affaire bi loolu mooy ñaqaru askan bi tam nag li ma wax foofu nu mooy état na gën a xool responsabilité am ci baykat yi man maa ngi demandé les cinq comme ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñooy cinq naka la tudd cinq cinq candidats yi ñoom ñëpp ñu wax ma seen programme ci lan mooy monde rural bi ban taxawaay lañ ci am rawatina ci baykat yi donc loolu soxla naa ko trop waaw ci affaire gerte gi ba léegi dañoo wër ci ba béykat yi laaj leen. Mhm. bi ñu leen laajee ñu ne ñu ngi jëndee gerte gi cent quatre vingt cinq est ce que loolu dëgg la. waaw. gis nga ci lu leer fii nga taxaw te ay nit wax nañ la ko 195 dugg nañ fii ñu def suñu enquête filmer ko ci suñu caméra wu bopp ñu wax la ne loolu la ñuy jëndee tey ñun bi ñuy war a ñëw fii man am na opérateur bu ma woo ne ma carrément jaratu ko parce que ñun bi ñu defee suñu annonce dimanche bee la 13 la waroon doon ñu annulé ko sa parce que ñàkk autorisation ñuy respecté yoon trop léegi ci diggante bi xëpp nañ fi alal bu bari influence béykat yu bari fay na leen ci saasi donc kon man dama wax que même bu fekkoon ne tey affaire bi amuloon tey annonce rek toptal na leen léegi nag lan moo tax nit ki fekk génnul war a dekkoon na rek duñ ko fay lan moo tax est ce que réew warul tegu ci yoon ku nekk war a jot li mu war a jot mais ñun génn nañ def suñ bande xam nañ aar suñ ni mu toll fii rek tax ñu fay ñëpp te bu la neexee nga commandé ñu bëri fay nañ leen tey donc ñëpp ngi am problème dama bëggoon nag balaa loolu di am ñiy génn di wooteeg loolu ñoom ñu jël seen matukaay di fay baykat yi parce que dañ bokk ci réew mi donc loolu lañ bëggoon waaw kon dañoo yaakaar ne bu fekkente ne da ngeen def seen annonce rek ñu génnee xaalis bi kon est que xaalis bi nekkuloon fi avant ba pare ñu koy jox nit ñi ñu koy mbokkatee comme non mun na am xaalis bi mu ngi fi woon parce que ñoom boo ñëwee di jënd tey cash dañuy jand cent quatre-vingts cinq lañu ñu jënd yow wala cent quatre vingt dix boo ñëwee ñu wóor na mën nañ def bor ak yow mën mën nañ la defal boo noteel la ñu la ci deux cent dix ça veut dire que xaalis baa ngi foon mais bi ñu déggee annonce ak béykat yi xam ne ñëpp ñu ngi leen yoral xaalis maire bi ñu maire ak futt bi ñu futt moo tax ñu profité génn mun nga wax ne xaalis baa ngi foon mais ñi koy jox mooy opérateur yooyu ñoom ñooy profité ci suuf di ci defaat leneen maanaam di mbappat di jox di jand mais ku war a jënd kaas ñu jox la ko ça veut dire que dañoo tiit moo tax ñu génne ko mënoon na une semaine 15 jours ay milliards mën na ci génn te nekku fi woon non am na fu mu nekkoon léegi nag mu bëggoon muy leer ci ak état ak baykat opérateur bu ñu bëggee noppal seen bopp noppal baykat yi nañu fi jëlee opérateur économique yi te utal ñu beneen yoon boo xam ne ni day doon direct ñun ak Sonacos te ubbil ñu frontière yi ba pare ñu promouvoir dawlin bii ñu koy lekk parce que tey boo demee fee Sonacos yaa ngi fekk ay stock yu bëri yu daaw yi ba léegi ñu ngi ko teg ñu ko fa teg donc jarul dëwlin bi jarul léegi ñoom nañ ko promouvoir commencer par président moom ci boppam muy lekk suñu dëwlin ñu gis ko ñoom ministres yi les gouvernement nga xam ne nit ñëpp dañ ko mën a jël parce que suñu defee consommer local au moins que diw bi bu demee gerte yi dina gaaw di jar ba pare ñu dimbali ñu ubbi nag frontières yi parce que jot na tey kilo gerte jar 1000 francs 500 francs minimum gën nga tuuti parce que loolu bu ñu ko defee mooy bu dee chinois bi ñëw na anglais bi ñëw français bi ñëw képp ñëw ñëpp ñëpp ñu bëgg gerte bi boobaa wax dëgg yàlla am nañ yaakaar que ni dina am solo incha allah tàccu leen ko. non non campagne bi doxul parce que ren wax dëgg yàlla mun nañ ne gerte am na te set na diis na mais munul dox sa parce que baykat yi ci boppam jënd jënduñu seen gerte chako amatul laajal ku la neex chako amatul ci dëkk bi instant bi te loolu bu fekkee seko amul mooy opérateurs yi ñoo respectul seen état seen seen seen seko yi kon nag dañoo bëgg en tant que commerce en tant que état mu jël responsabilité ci loolu nga xam ne seko bu ci nekk mu fexe ko fa samp ñu ciy jot loolu lañ bëgg. je m'appelle euh, Mohamed Aïdara candidat de Kaolack euh, représentant Aar Sunu Moomeel ici présent à Birkelane juste pour euh, parler de la difficulté des paysans euh, avec euh, leur arachide de reste euh, sur le main sans que euh, l'État ou bien les opérateurs économiques les achètent. Merci bien. la situation d'aujourd'hui qui nous a à organiser notre Donc la situation qui nous a poussé à organiser cette manifestation, c'est juste et simple parce que à, euh, à tout moment vous attendez Euh, comme moi Mohamed Aydara euh, Tukulëri Baye Ngunda Jombos Dame Kane Fass Barigo Mali Cissé Medina Parkha qui qui réclame tout le temps tout le temps euh, la vente de l'arachide sur le main des des des paysans voilà c'est pour cela vous imaginez que le paysan n'a rien d'autre que son agriculture oui, euh, euh, euh, après l'agriculture, s'il récolte son arachide, il doit le vendre. mais il doit le vendre où L'État a fixé un prix à euh, à 210 francs. Mais si tu vas ici, euh, à Mirkilan, sur le marché, tu ne verras nulle part quelqu'un qui vous dit euh, euh, vends-moi ton arachide à 210 francs. On, vous vend, euh, on te dit, on te réclame des prix euh, misérables à 150 francs, 160 francs. Vous voyez que ça, c'est honteux, c'est déplorable ça. ce que je réclame est que l'État laisse les paysans euh, comme si c'était des gens marginalisés. Parce que euh, le paysan n'a que son arachide. Après l'agriculture, il doit euh, vendre son arachide, payer son, son, son surga, comme, comme on le dit, payer son surga. Ce, surga-là, il, il, il, a besoin de cet, cet, cet euh, argent juste pour payer ses, ses, ses, ses frais. euh, il doit très souvent vous voyez des, des gens qui euh, aillent quelque part juste pour pour pour pour euh, faire affaire de euh, surga juste à, à, à, oui de travail saisonnier oui c'est des Français cultivateurs oui moi je un représentant oui euh, avec ça euh, ces ces travailleurs là il a besoin son argent juste pour acheter un lit, ou bien pour se marier, ou pour euh, euh, euh, satisfaire les besoins de sa famille. Mais euh, alors, à, à, la fin de, de, de, la saison des plus mais ce euh, travail la il, il, il, va c'est son patron pour réclamer son argent. Il lui dit, j'ai un impôt comme ça. On, on, a des bons impayés. Il a certains qui m'ont présenté tout à l'heure là, des bons impayés. Mais ça ne date même pas de cette année-ci. Ça, ça, date depuis euh, euh, l'année ça, c'est déplorable. Comment se fait le paysan qui, qui, qui, a besoin de son argent depuis l'année dernière, hein, il a son bon MP, alors on ne l'a rien donné à tout moment, on dit c'est son accord, c'est l'État, c'est l'opérateur privé, mais on ne sait pas euh, là où doit, on, doit diriger euh, pour, pour qu'on réclame notre argent. C'est ça notre euh, problème euh, majeur, bien sûr. Combien il on dit Même il y a des gens qui m'appellent euh, euh, de Médina Parha qui me disent qu'ils euh, n'ont même pas vu des gens qui achètent à 195, à 175 francs, 100, 560 francs comme ça. C'est ça qu'ils. Mais très rarement même. Si tu vends quelqu'un qui achète cet argent à 100, euh, l'arachide à, à 175 francs, euh, les gens vont euh, courir vers toi pour pour te vendre leur pour leur pour te vendre leur argent. ma léegi nag moom moom ñun rek lay xaar donc loolu. remerciement bu ma koy def la en tant que nit boo xam ne da nga nekk ci benn secteur war a def développement te gis ngeen ko aussi léegi commandant moo taxaw orienté ñu boole ñu ak ay nitam donc am réew pour man noonu la mën a doxee boo ko defee rek doo am problème mais ay nit bu ñu waxee bind nga yëg leen du ñu toj mais fekkee yëgoo leen faale woo leen dañuy toj kon maa ngi remercier préfet ci xaar bi mu ñu xaar ci bésu dimanche nag encore une fois donc am na mérite. bu ce que vous m'avez là, je le remettre à qui de droit et on va essayer de prendre en charge vos principales préoccupations, qui sont les préoccupations aussi de l'État. C'est bien. Et je vous encourage. À bientôt.